Ben, j'ai été déçu, hein, comme tous les Sénégalais. Parce que je crois que, euh, quel que soit Alpha, au Sénégal, il y a plus de 400 dossiers Youmelni, Yuni gérés, journalièrement. Donc, euh, un dossier de diffamation, vous dites ampleur, ça veut dire que l'ocho yu yutu waron dugu dugu nechi. Mais c'est pas un dossier ordinaire. Vous savez, vous n'êtes ordinaire, le ordinaire, ça dépend de l'appréciation. Je crois ah que su bon? ko tegoon fa nu ko waroon teg rek vraiment amul immiscé politique bi immiscé si comme ñu ngi ci duggee nii avec les enjeux yi nga xam ne teg nañ ko. mais loolu laa lay wax bi kenn mënu ko occulter ah. non ci dossier bi. que Ousmane Sonko c'est un homme public une personnalité publique boo xam c'est un homme politique bi kenn mënu ko si occulter. mais dans les grandes démocraties les hommes politiques hautement responsable mm-hmm. lii la leen di dal. Mm-hmm. et pourtant dafay jaar correctement ci yoon ba nga xam ne problème du am kuy liggéey di nga liggéey duñ taal fen. pourquoi pas ñun mënu fi am. parce que ici peut-être dafa am yoo xamante ne. nit yi respecté wuñu ko am na yoo yoo ne aussi. jot nañ ko gis. lu xew si Khalifa Sall lu xew si ah, Karim Wade peut-être. nit yi soo ma dégloo ah, loolu. parce que si li nga xam ne mooy justice bi à législative loolu la ñu constaté parce que tey bu fekkee ne dossier bi traité woon nañu comme dossier normal tey li du fi am. justement loolu la ça peut pas être normal a été accéléré non attendez xam nga yaa ngi wax. Khalifa Sall yaa ngi wax Karim te yow gis nga li leen dal. Hmm. gis nga seen dossier aussi cadence ba ñu ko traité. Hmm. ba am te leen ci war a am. Hmm. donc ñii tamit dañu gis ne ne tey seen leader ñu ngi koy yóbbu à l'abattoir. ñoom pour ñu taxaw di parce que nag nee nan euh, Kounda bin rey sa maam boo gisee lu ñu daw. et c'est ça la réalité moi je dis encore c'est au départ que la ñu faussé yi. tey jii bu fekkoon dañ ko traité comme un dossier. Ousmane Sonko n'est pas n'importe qui moo tax caractère ordinaire bi ngay wax d'accord voilà très bien mais dañ ko waroon a régler avec la justice et uniquement la justice bu fekkoon ne dañu nekk dans un pays boo xam ne démocratique mais li am tey euh, man li ma ci naqari rek mooy aujourd'hui beaucoup de Sénégalais tey y a une certaine instabilité boo xam moo am ci réew mi mhm. ñëpp tiit ku ko bañ ku ko bëggul parce que boo tiitalu sa bopp yaa ngi tiital sa njaboot. tey booy yu bari jànguwuñu. non mu nee tiit mooy que tey ñii jàngi sax seen doom yi. jàngu nelawuñu tant mm-hmm. tey i cours jànguwuñu. ñi nga xam ne am nañ seen commerce tey mënuñu ko exercer. te ñu bëri tey ci Sénégal ay góorgóor lañ dañuy xëy ba pare doog a envoyé dépense. Mm-hmm. et ça devient très compliqué par rapport à la situation du pays.